al imam al zahabi rahimahullah taala daf ne ahadu aimatul ilmi ahadu aimatul ilmi wa kaana imaman siqa maanaam moom kenn la ci borom imaamu ci imaamu xam-xam yi nekk na imaam boo xamante ne ku wóor a wóor la ci taabi ay la bokk comme ni ko al imam ibn hibbaan waxe imam ahmad ibn hanbal tamit wéral na ko dëgëral na ko nee na xaala te moom waxoon nañ ay mbiram ngir ne lan lan ibn abbas la woon radiyallahu taala anhu moom moo daal moo ko daan interpréter voilà moo ko liggéey ñaari weer yooyu di ko interpréter bi mu nekkee xaadi fan basra xam nga loolu waxoon nañ ko ci voilà loolu kon euh, moo tax xadis bi waa basra ñoo ko solo dégg nga xadis bi ñi ñi fi nekk ñëpp waa basra lañ subhanallah ah subhanallah yooyu ah vraiment sëtëtëtë bu ñu xoolee biñ boobu léegi bu ñu seetloo xadis yi nga xam ne waa Màkka ñoo ko solo wala waa Madina waa Madina bëri nañ tuuti waa Màkka bëriwuñ lool waaye bu ñu xoolee waa Basra waa Kuufa ñoo rafle mise bi loolu moom bu ko xoolee depuis bi ñu tàmbalee xadis bi ba ñu ngi ci quatre-vingt-septième presque soixante-dix wala quatre vingt pour cent waa Basra ak waa la ñoo solo xadis yi maanaam loolu day tegtale maanaam seen suuf si ni ko yàlla barkeele kekk xam-xam. dafay dafa mel ni garab day juddoo fenn mais day tasaaroo comme ni garab di we ci benn bërëb mais bu yéegee day tasaaroo def nii yéeg moo tax dëkkul fenn xam-xam dëkkul fenn waaw ñii duñ ñu ci ëpp ci ñoom duñ ay arab ah. bu leen yaakaar ni ñii ñuy tudd ay arab la de comme ni ko gars di yaakaar naan way diine naar la déedéet ñii duñu imam al Bukhari yi ci jëpp boppam du naar européen la imam al Bukhari xam ngeen européen la Ouzbékistan la dëkk Ouzbek kon nak lolu yoy euh, yoy motax mbir yi manam amul amul deret amul askan amul dara lolu amul ci diine motax lolu lolu lolu amul ci diine voilà ba pare li ëpp ci ñoom bo seetloo bu ñuy wax ci dañ nan diw mawlaahum ñoom ñëpp ay jaam yuñ goreel lañ ou presque ñu solo ñu ci bëree bëree bëri ak jaam jaam yuñ goreel lañ hein gisoon nañ ko. ci xadis bi Seydina Omar radiyallaahu anhu voilà mu ne kon ma ne mu ne kuntu nekkoon naa xaala abu kon euh, abu jamra dégg euh, te moom mooy Nasr ibn Imran euh, rahimahullah xaala nee na kuntu nekkoon naa utarjimu doon doon doon doon doon doon nekk lantinoor bay bay na ibn abbas diggante Mawlana Abdullah ibn abbas te moom mooy Abdullah ibn abbas ibn Abdul Muttalib alhaashimi radiallahu taala anhu radiallahu taala maa ñu naan ko albaxra moom mooy xibra mooy xabrul umma wa tarjumaanul quran nee na da da moom wa bay na naas ak nit ñi maanaam ma ne daan defar interprète ngir ne moom dafa déggoon seen làkk maanaam bi mu ñëwee Basra moom Ibn Abbas déggul woon làkku waa Basra yi mais moom déggoon na seen làkk fa qaala mu ne inna li wér boor mooy wafda bay na wax da Abdul Qays loolu gisoon nañu li tax mooy ndaw si benn maire moo ñëwoon indi benn euh, ndaa loo xamante ne dañ cee defoon nabis ah voilà maanaam mooy dañoo jëloon tàndar ma dugal ci biir ba affaire bi jekki am ci cafka mooy comme genre euh, xaw ma na nañ koy waxee mais comme genre du jus mais à peu près la jegal dañ ko ci yóbbu mu ngir mu saf ci rek quoi léegi bañ ko ko joxee bañ bi mu indee mu ne ko nag mu koy wax nag ne ko lii àtte bi mooy ne dagadut daal ba mu ko nee mais lu tax te man man pourtant yor naa fële ci kër ga maa ngi fàgg ndaalu mel nii de mu ne ko nag fa ci la ko leeralee àtte bi ne ko te bi mu ko koy leeral néew ko lii baax na baaxul de daf koo wax directement xadis bi daf ni ko inna te loolu bu am solo la mooy ne yeneen bi saa salaam lii la jàngale inna li wér bu woon mooy wafdu Abdul Qays maanaam mooy délégation boobu Abdul Qays ataw dañoo dikkee nabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon yi nga xamante ne moom mooy biñu daan baaxul ah, alxumusu min al iman leeraloon nañ ngëneel yi nga xam ne waa waa Abdu Qays ñoom am nañ ko mhm. seen ñooñu mu ne sal mu ne dikkee nañ annabiya yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne manil wafd waaw ñan ñooy waaw kuréel gi délégation bi ñan la mhm. aw wala boog manil qawmu ana ñan ñuy gaañi gaañi ñan lañ maanaam al qawmu suñ ko waxee euh, dañ koy wax góor kese groupe góor waaye dañ koy wax tamit góor ak jigéen waaye jigéen ñi kese kese kenn du leen wax xaw mi kenn du leen wax xaw mi comme ni borom bi wax maanaam am na ay wax par exemple loolu xaw ah, mu boobu góor ñi rek la doon wax comme bi mu naan laa yasxar xawmu min xawmin asa an yakunu xayru minhum wala nisaan min nisain asa an yakunu xayru minhum ah bu ay góor maanaam kon ay góor la xaw ma groupe góor ay góor bu ñu reetaan yeneen i góor ndax amaan na ñoo ñoo leen gën waaye tamit ay jigéen bu ñu fi nekk di reetaan yeneen i jigéen ay mbooloo yeneen mbooloo jigéen amaan na ñoo ñoo leen gën dégg waaye comme fi mu naan inna arsalnaa Nuuhan ilaa qawmihi foofu xaw mu góor ñi jigéen ñëpp lañ ciy wax dégg nga ah, kon ma ne yonent bi saa salaam laaj leen ma ne xawmu gaa yi ñan lañ waaw waa dëkk ba ñii ñooy ñan xaalu ñu ne ko a xam nga Rabia la ko xam ne Rabia mooy ah, doomu Nizar maanaam Rabia ak Mudar ñoom ñaar ñooy doomu Nizar ak ñu doomu Maat doomu Adnaan maanaam kon Mudar Euh, ak rabia waaye waa mudar ñooy ñooy mbokk yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax am yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mudar yi la waaye yeneen euh, ki nga xamante ne moo tax euh, kiiw ya rabbi salli alal yi mooy waa mudar waaw waaye mudar waaye rabia mooy mooy mooy seen yeneen mbokk yi moo tax ñu ne ko rabia waaye loolu mu wax ko rabia maanaam rabia dëkk lu yaatu at la du waa Abdou Kays kese du du boobu waxoon nañ ne la Abdou Kays mi ngi mel ni tey bu ñu ne woon waa kër Mbay Fall mhm. maanaam tekkiwul ne mi bu maanaam tekkiwul ne Mbay Fall euh, benn benn maanaam que ni benn nit rek la mhm. déedéet bu ñu nee waa bu ne voilà mais li muy tekki mooy dëkk bi moo tudd bay Fall mhm. masalan voilà maanaam nit ñi quoi gox bi maanaam wax nga am doxay si dégg nga moom mu ne mu ne leen faqaala mu ne marhaban maanaam ñi ngi leen di tatagal bil xaw mi ci nit ñi aw wala boog bil wax bi ci wala boog euh, kuréel gi ki kuréel gi maanaam euh, délégation bi xayra xasaaya ngeen bañ a nekk ñoo xam ne borom yi gàcce ngeen wala war a ñu rëccu yéen dégg nga xaalu ñu ne ko innaa naka ñun na na tiika dikkee nañ la min suqa ci aw dox boo xamante ne bàyyi na bu sori la mooy suqa mooy mooy masaafa rek mooy distance mu ne wa bay na naa waaye nekk na suñu diggante wa bay naka ak si ak si ak yow haadal xayi bi ñii nga xam ne mooy euh, kuréel bi mooy koñ bi dëkk mooy dëkk mooy gox bi minal ku faare min ku faare dar ci waa yéeféeri waa mudar maanaam mooy duñu ay voilà bokkuñu ak ñun waaye waa mudar lañ ay yé waaye nag groupe boobu ay yéeféer lañ mm-hmm. wala nastati'u te amuñu kàttan an natiika ci ñu lay dikkee illaa lu dul fii shahrin xaraamin ci fii shahrin ci weer woo xam ne xaraamin bo bu bu ñu ormal la maanaam nga gis ne fële fi shahril xaraam fii fii shahrin xaraamin maanaam mooy riwaaya bi maanaam mooy ci weer woo xamante ne wu ñu ormal la waaye kon nag fa mur naa eh, digal ñu ci am rin ci mbir moo xam ne nux biru daañ xabaari bii ci moom man ña nga xam ne war a anaa ñoo nekk ci ñu gannaaw naduxul bu ko defee ñu dugg bii ci moom aljannata aljanna maanaam nga gis ne dañ leen a dañ koo laaj laaj bu am solo comme niñ ko gisee woon maanaam nekkuñu fi di ko laaj naka tool yi naka kii bi mbaax gàncax gi sax naag mbaax kii naka jur yooyu laaj ñu ko laaj ñu lan mooy actualité yi fii nangam la nga et cetera waa naka sa gars yi déedéet dañ ko ñu loo xam ne maanaam mi ngi mel dem ci sëriñ di ko laaj sa montre bi ñaata lay jar bu kii sa yére bi rafet na mm-hmm. maanaam nekkuñu di perte yoo xamante ne yu ñàkk fayda la loo xamante ne dañ ci ñun da buñ demee ci ñun ci gars yi ci des daañ leen ko xabaare te baa dañ dugg àjjana maanaam nga xam ne moom ay question yu pratique la voilà maanaam moo tax it kuy dem maanaam ci jotaayu diini tamit loolu la maanaam loolu nga ci war a xool ndax bu ma fa demee daañ ma daa fa maanaam lu may def après maanaam loolu rekk am solo ah. maanaam bu ma pare bu ma bu ma ñibbee kër ana lan laay def voilà mais su fekkee ne da ngaa dem waaye boo toogee toog toog toog ba fajar gi jot wala bu dee ci suba gi ba ngoon gi jot waaye boo ne waa léegi bu ma ñibbee kër gi lu may def ci li ma fi fekk li ma fi dégg finalement après na non mais doo def dara finalement kii nga rek c'était bien rek loolu mooy kon yow defoo woon dara dégg nga mu ne kon moo tax ñu wax kon mi ñu ko waxee loolu te loolu tamit day wane ni nit ki war naa warta perte temps ci maali forom mm-hmm. waaw dégg nga mu ne mu ne ko fa amarahum yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam digal leen bi arbaan ci ñeent wa nahaahum mu teral leen an arbaan ci ñeent amarahum daf leen digal bil imaani ci ngëm billaahi ci buur yàlla azza wa jalla màgg na te dina wax doo moom dong maanaam kennal gi ñu war a maanaam seede gi ñu war a seede suñu xol kenn borom bi subhaanahu wa taala qaala mu ne leen hal tadruuna ndax xam ngeen mal imaanu luy ngëm billaahi ci yàlla wax doo moom dong fii tamit maanaam comme ni ñu ko gisee woon daf daf eh, eh, ah, eh, daf leen koo laaj ngir xirtal leen ci ñu gën a bàyyi xel ton tontule xaalu ñu ne ko allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam li sallallahu alayhi wa sallam alam ñoom ñoo gën a xam loolu tamit teggin bu rëy la ci xam-xam maanaam waaw ah, maanaam ndax nit koo xamante ne boo koy boo koy jàngal daf lay wan ne la koy wax moom it xam na ko du la jox envie nga jàngalaale ko loo xamante ne xamu ko te amaan na xam na loo xamante ne amaan na ci biir mbir mi dana ci waxaale loo xam ne yow xamoo ko woon dégg xaala mu ne ndax xam-xam dafa yaatu géej la bu dul jeex xaala mu ne shahadatu di seede gëm dëggal wóolu an ci ni mbir mbir mooy laa ilaha amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg laa ilaha amul benn buur boo xam ne moom mooy dafa ko dindi laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ko dana jariñ te ñàkk jaamu koy lore laa ilaha amul kenn koo xam ne ak nekkam war na laa ilaha amul kenn koo xamante ne mooy def ak di dindi laa ilaha amul kenn ku am sañ-sañ gu dogu ci di tëral ay atte di diglee ko tere illallah ku dul buur yàlla wa am na ci li wér bu wóor tey mbir tey tey wóor mooy muhammadan naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah mooy ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa sallam loolu day dellu ci li ñu doon wax sànq ci ne maanaam yentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla ñun li ñu gën a d'accord nangu war koo nangu ci moom mooy uluhiyya bi mooy mooy martaba bi gën a kawe moo tax allah sax ci martabatu uluhiyya la ne baat bi tur allah te mooy tur bi gën a màgg waaye yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam martaba bi gën a màgg mooy rusul uh, mooy risaala bi mhm. mooy rasulullahi moom moom la yàlla gannaaw ba nga xam ne yàlla dong lañ war a jaamu amul keneen ñu war a jaamu ku dul yàlla laa ilaha kenn ku ma war a wan nan laa war a dundee sama àdduna nu mu war a doxe illa allah ku dul buur yàlla waaye comme que moom rek ma ko woon waaye nag muhammad yent yàlla muhammad moom saa sam rasulullahi mooy ki yàlla yabal ngir mu jàngal ma loolu nu muy amee mhm. dégg nga gis nga bi mu leen waxee gis nga wéetal yàlla moom kese ndegete yàlla du nangu buñ ko tuddee te duñ tuddaale tuddaale woon yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ànd ak daf ni leen na ngeen wiital yàlla moom keese keese keese ànd ak loolu bi muy tudd loolu tuddaale na ci ne ah, attention de yàlla du nangu lu dul ne maanaam sa wiital yàlla bala moo nekk lu wér faw Muhammad rasulullah ñëw sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne wa iqaamu salaata te taxawal julli tamit wa ita zakat ak joxe azaka wa sawmu ramadan ak woor weeru koor wa tootu te ngeen joxe tamit alxumusa juróomeel bi minal max na mi ci màng bi maanaam li ngeen màng boo leen demee takku xare loolu tamit leeraloon nañ bunt boobu ak li nga xamante ne moom moo tax tuddaale wuñ ci at te moom mooy ñii ñeenteelu at bi la wala boog li gën a màgg ci li wax mooy juróom-ñetteelu at bi ci lañ ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te at ñu ngi koy def ci juróom-ñeenteelu euh, wala euh, ci fukkeelu at bi ci lañ ko ci lañ ko farataw mu ne waaye wona ha hum tere na leen euh, ani dubba euh, te euh, moom mooy a dubba mooy kokk comme kokk yi wal xantam ak ndaa mooy ndaa yi wal wal mousafat mousafat moom mooy bu ñu jëlee tàndarma dagg ko maanaam garab bu tàndarma dagg tronc bi ba pare euh, xoos li ci digg bi maanaam li muy defaree noonu maa ndax yooyu yëpp ay xeeti récipient la yoo xam te dañ ci daan def seen nabis yi looloo tax mu tëral leen ko qaala Shu'ba euh, euh, non muzaffar déedéet du loolu naqiir mooy loolu muqayyar ak naqiir moom mooy mooy loolu mooy tàndarma bi muzaffar mooy goudron bi buñ ko goudronné waaw boo mooy muzaffar aw nee na rubama Euh, aman na nag xaala nee na an naqiiru mooy mooy garabu tàndarma bi ñu dagg maanaam kon bi nga xam ne dañ koo godrone ak yépp yi nga xam te ne dañu xaw a nuróog loolu rek waaye euh, mu ne waru ba maa wax na xaala tamit al muxayyar maanaam nga xam ne day wuute ci ne ndax mm, euh, te loolu imam sooba moo ko te kon loolu li muy tekk moom mooy ci abu jamra moom moom moo sikki sàkka kon sikki sàkka bi ci foofu la jóge dégg mu ne kon xaala nee na almuqayyar te moom mooy mook mook mu an naqir benn la ñoo bokk maanaam xaala yeneen bi saa saam teg ci ne ihfazuhu na ngeen li wax ji wa axbiruhu te na ngeen ko xabaare man waraakum ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen ginnaaw xadis bi taxrij bi gisoon nañ ko baabu buntu ar rixlat maanaam laxas fil masalati ci masala boo xam ne an naazilati bay aji wàcc la waaye wa taalimi ak jàngal ahlihi ñoñom maanaam buntu bii boo ko xoolee wuute na ak bunt al xuruuju fii talabil ilmi xam nga am na bu bunt bu ñu romboon yàggul ne baabul xuruuji fii talabil ilmi ndax am na benn baabu zahaabu Muusa sallallahu alayhi wa sallam ilaa xadr maanaam boobu am na maanaam buntu yent yàlla Muusa alayhi dem gi mu dem ci Seydina Xadr alayhi salaam loolu mooy loo am xam-xam am xam-xam boo gisee ku la ëpp xam-xam sàkkul xam-xam ci moom loolu mooy benn bi ci des ba pare te yow boo amee xam-xam loo jàng-jàng ay xadis jàng ay mat mu jàng ay téere boo gisee koo xamante ne vrai nitu yàlla la koo xam ne mën na laa jariñ ci sa buntu yàlla demal mu jariñ la loolu mooy benn mais bu fekkente ne baabul xuruuji fii talabilan bi buntu génn ngir sàkku ci xam-xam dafa général mooy ne rek loolu ñëpp la war képp koo xamante ne dafa war a sàkku xam-xam rek daa war a dem dem euh, génn pour dem sàkku ci xam-xam maanaam xool fu xam am yëpp fu mën a jotee rek lu mu mën rek mu dem def ko am amma nag baabu bii nga xamante ne moom mooy ar rexlatu ah bii bunt bii nga xam ne moom la teg ne da ngay laxas ci ngir masala bu wàcc mooy ne bu fekkente ne dafa am masala boo xam ne dalaa jaaxal nga dem laajte ji ko jaree nga tukki nga tukki ngir loolu comme niñ ko gisee woon ci ci Seydina Jaabir radiyallaahu nga xam ne dafa tukki weer dem ba Sham ngir jàngalan benn xadis kese deng euh kon mot tax riwaya riwaya euh karima mom mo am wa taalima ahlihi mooy karimata bint ahmad al mom moy euh rahmatullah alayha moom mooy moom mooy taalibe wu kan al kushmeyhani mooy taalibe kushmeyhani kushmeyhani moy taalibe alfirabri alfirabri moom moo jànge mooy solo xadis bi ci imaamal Buxaari moo tax ndaw soosu borom gënal lu màgg la ngir ne bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax ñu am suñu saxiix bi tey ba pare amee ko ci ci ci riwaay yu leer kon wa taalimi alihi moom ci riwaayam la ñëw dégg nga rahmatullah alayha nee na kon mu ne xaddathana bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi ilay qaala xaddathana muhammad ibnu muqaatil gisoon nañ ko mooy abul hasan محمد ابن مقاتل المروزي ابو الحسن الكسائي مو داكنتال ا موم امنا كينن سي سيرين امام البخاري كتب محمد ابن مقاتل استغفر الله فات سيرين امام البخاري موم امام البخاري لم سولو تي موم بريو بو بري اندي نكو نا سي صحيح بي موم موم رك موك سولو اي حديثم تي وا اصحاب كتب السته بامو جيخ امام البخاري كيسه مو سولو محمد ابن مقاتل المروزي ابو الحسن المروزي الكسائي Euh, lu tax parce que moom dafa nekkoon mag moo tax imam al yi rek moo jot a jàngee ci moom ci waa saabu kutubu sitta loolu benn la euh, moom Marw la dëkkoon waaye am na keneen ku nuróog moom ci ruwaat yi ku tudd Muhammad ibn Muqatil ar-Razi ñaar ñoom dong dong dong ci ruwaat yi Muhammad ibn Muqatil al bi ak Muhammad ibn Muqatil ar am amma Muhammad ibn Muqatil ar moom dafa mën a expliquer maanaam dafay sos lu baree baree bare day bind té bind na sax téere bu mu sosal imam Abu Hanifa rahimahullah ci ay ni ay la yu mu solowee ci moom maanaam nga gis ne euh, euh, euh, maanaam waddaa la day sos moo tax imam al Buxaari dafa dem ak Naysaabu Naysaabuur di jàngale xadis daan ne xaddathana Muhammad ibnu Muqaatil qaala rek gars yi ni ko benn waaye ni ko ah آه، المروزي او الرازي <laughs> ما فان كان تي محمد ابن مقاتل من لا ان اخر من السماء الى الارض احب الي من ان اروي من محمد ابن مقاتل الرازي <laughs> ما خاويكو تي اسمان بو ود بي سوسي دال دل موما غنال ماي سولو حديث ديكو جيلي تي محمد ابن مقاتل الرازي سبحان الله واه <laughs> waaw ko moom ci xam-xamit noonu la ku ñu xam ne kii expliqué kat la moom jaratul jóg non teggin yooyu dafa am dafa mat a bàyyi xel parce que ci loolu ci ngay fondé sax xam-xam ci lu dëgër kese ak ci lu wér kese waaw qaala nee na axbarana abdullah maam mooy ibnu mubarak waaw daanaka doo gis muhammad ibnu muqaatil al mini mu ne mu ne mu jëlee ci abdullah te moom mooy ibnu mubarak al marwazi maam ñoom ñoo bokkoon dëkk lu dul lu dul ci euh, mu ne axbarana rarement ngay gisal lu tax parce que téere la jàngee ci moom voilà comme abul yaman ak shuaib tamit noonu lañ demee mu ne qaala axbarana abdullah te moom mooy abdullah ibnu mubarak moom gisoon nañ ko gisoon nañ ko gisoon nañ ay mbiram imam bu màgg boobu waaw waaw rahimahullah <laughs> ca ca mooy imaam waa Marwa ci jamonoom ñoom jamono ñoom imaam Maalik yooyu jamono ju barkeel googu xaala mm-hmm. mo parce que ibnu Mubaarak waa ahlu tasawuf fonk nañ ko lool dañuy bëri lu ñuy solowee ci moom naan Abdullah ibnu Mubaarak dem na wax na nangam mm-hmm. lu bëri lañuy solowee ci moom xaala mm-hmm. nee na axbarana Omar ibnu Saïd ibnu Abi Xuseyn te moom mooy Omar ibnu Saïd ibnu Abi Xuseyn al-Qurashi an-Nawfali al-Makki maanaam euh, moom ci banu Nawfal la bokk moo tax ñu naan ko an Nawfal yi euh, ndax xam nga maamu yenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ñeenti euh, ñeenti ñeenti doom dafa am Hashim bi maamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am bi nga xamante ne moo tax Abdul Muttalib ñu naan ko Abdul Muttalib ndax frère la woon baayam la moo ko jëlee woon Madina bi mu ñëwee ndeg ci gannaaw ñu ja yaakaar ne jaamam la ndax waa Màkka xamuñu ko ñoo ne Abdul Muttalib a ngi mais Shayba la tuddoon maanaam al Muttalib boobu moom mooy maamu imam Shafii moo tax ñu naan ko al ngi dégg euh, beneen bi ci des euh, keneen ki ci des moom mooy Abdou Shams ñoom ñett ñi ñoom ñett ñoo bokk benn ndey bu leen jur mooy Atika bint Zayd ñoom ñett ñoom ñoo ñoom ñoo bokk ndey bi leen jur amma nawfal moom kese moom la keneen jur moo tax euh, ci abdu shams boobu euh, euh, moom moom moo jur ñoom umayya bi nga xam ne moom mooy ñooy maamu ñoom sayidna usman ñoom suf abu sufyaan et cetera maanaam waaye nawfal bii moo tax moom le fait kii nekk ba doomu Saïd ibn Abi Hasan nekk Nawfal yi moo maanaam di jël surtout Nawfal boobu nga xam ne Nawfal doomu Abdou Manaf kon moom ak yeneen saa sam ci Abdou Manaf lañ daje. moo tax ñu naan ko an Nawfali al makki makkal dëkkoon qaala nee na xaddatani Abdullah ibn Abi Mulayka maanaam moom it gisoon nañ ay mbirum waxoon nañ ko ñu naan ko al Ahwal mooy Abdullah ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abi Mulayka maanaam nga gis ne Abu Mulayka maamam la bu sori waaye dañ naan ko Abdullah ibn Abi Mulayka ah. abu mulayka turam moom mooy zuhayr zuhayr ibn abdullah ibn jadaan ibn amr ibn kaab ibn saad ibn tayyim ibn murrata foofu la tase ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam al qurashi at taymi ñu koy wax tamit abu bakar ci dàkkantaram ñu koy wax abu muhammad tamit mooy al makki al ahwal nga xam ne qaadi la woon boo xamante ne abdullah ibn zubayr ibn awam radiyallahu taala anhu moo ko sampoon mu nekk tamit koo xamante ne daf ko daan noddal tase na ak fan weeri saxaaba radiyallaahu taala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci kitaabul iman ñu ne ko fàttaloo bi mu naan fekk tase naag fanweeri saxaaba amul kenn ci ñoom kuy wax ne euh, xam lu dul ne da doon ragal ak naafeq te amul kenn ci ñoom ku doon wax ne sama ngëm ak ngëm yàlla jibril ak mikaayil ñoo tolloo yaa fàttaliku moom voilà moom moo wax tamit wax ju siw ji ne mboolem ñi ma fekkee ci saxaaba yépp dëppoo nañ ci ne ku dul julli yéeféer la moom moo wax wax jooju mooy abdullah abi mulayka rahimahullahu taala waaye li nga xamante ne loolu la gis ci taabi yu mag yi la bokk moom dafa ni gis naa fanweeri saxaaba waaye bu ñu toppee saxaaba yi mu gis ñëpp ñëpp ñëpp bu ñu leen xoolee mooy euh, dem nañ bay toll ci quatre ci quatre-vingt saxaaba waaye li ëpp ci ñi mu jàngee trente voilà comme niñ ko waxe woon ci euh, voilà ci jotay jotay jotay wéle nga am ne faqir bu mag la tamit mooy abdullah bne abi muleyka mu ne an oqbata ibn alxaris euh, te euh, moom mooy oqbata mooy radiallahu taala anhu mooy oqbata ibn alxaris ibn amir ibn nawfal moom Euh, mooy moom it nawfal la mooy nawfal ibn abdu manaf al qurashi an nawfali euh, dañ koy wax abu sarwaat al makki al xijaas moom mi ngi tuub dugg ci lislaam bisu bisu yow mu fatxe fatxe màkka bis boobu ci la dugg ci lislaam saxaaba bu màgg la radiallahu taala annahu nekk moom kat tazawaja dafa dafa takkoon soxna dafa takk soxna waaye ka mu takkoon mooy ibnatan ab jigéen boo xam ne li ab yi ihaabin boo xamante ne Euh, abu ihab ibn aziz moom mooy baayam euh, ni mu tuddoon na mooy xaniya ndaw si ndaw si mu takkoon xaniya la tudd mooy xaniyat euh, bint abi ihab ibn aziz nee na fa atatu mu daal di koy dikkee imraatun am na ab jigéen soo xamante ne moom moo ko dikkee tur kooku nag Euh, ndaw soosu dañuy wax ne ndaw la soo xamante ne danaan nàmpalaate rek maanaam euh, euh, mu danaan faral di nàmpal jigéen ñu bare maanaam nit ñu bare bare comme xam nga comme ñoom xalimatu saad et cetera comme ni nga xam ne noonu lañ ko waaye nee na fa atadu kon mu di ko imraatun ndaw soo ndaw jigéen fa qaalat mu ne ko inni naka man kat dëgg-dëgg ardaatu nàmpal naa Uqbata mooy Uqbata bint Ibnul Xaaris radiyallaahu nàmpal naa ko wallati ak ki nga xamante ne tazawaja moom la takk mooy xaniya ñoom ñaar ñëpp laa nàmpal ah, fa qaala la wax lahaa ñel ko uqbat ne ko maa aalamu man de xaw ma woon ni an na ki naka yow mii ardaata ardaati nii mas nàmpaloon nga man wala axbar ti nii te it xabaar woo ma ko woon maanaam naka maanaam ndaw si dañoo jekki teg mais ñu dëkk ci comme nii rek ñu jékki-jékki am benn maire boo xamante ne day jékki-jékki nga takki soxna ñu jékki-jékki benn bés nag ngeen di waxtaan nga ne ah yow day naa la yow ki nga nàmpal yëpp kii nàmpal naa la yow ki nga takk <laughs> <laughs> loolu la ñuy loolu loolu la ñuy wax xalbu li ma li ma def wax xalbu moo tax xadis bu mel noonu boo comme ni ma ko waxee léegi takk naa la yàq ki nga nàmpal yëpp maanaam loolu dañuy xam ne xadis bi doon dañ ko dañ koy vérifier danaa bu ñu ko gisee dañuy xam ne ah bi maqluub la loolu la ñuy tuddee xadis maqluub mooy kiy nettali daa bëggoon wax dara wax beneen mbir mais wax contraire bi jaawale baat waaw moo tax atte yu bëri borom xam dañuy dañuy faral di seetantal maanaam borom xam xadis yi di xam ne ah non non bi saa sam ko woon nii ki nettali wax bi moo juum na mu ko nettalee voilà. mais bobu lol dañuy top mbir yi ba xamé ko hmm. mais nga xadisu maqdum dégg nga kon yow mune nam mune mune kon nak nambal na la yow ak ki nga tak yeb hmm. boo waxe mune ko ay eh, mais yow mosoo mako wax xawmuko won ni hmm. te muso mako wax faraki ba waya nak mu dadi war ci sase ila rasulillahi jëm ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wa bil madina jëm ci madina euh, ba mu jëme jëme jëme ci madina manam bobu makka la nekkon waaw ndax foofu la dëkkoon léegi moom nee na bi mu ko bi mu ko kii mu ne ko nag ah kon fa sa alahu mu laaj yeneen bi sallallahu alayhi wa fa qaala mu daal di wax rasulullah ndawal yàlla li salaa sallam loolu dong ko yóbbu màkk madina nag xabaar boobu mu dégg rek la ni xaaral rek daal di laxas préparé euh, euh, war waay week kii wëg la nga xam ne moom la war a yóbbaale yóbbal gi yépp dem ngir rek bu demee day laaj masala bi buñ ko ko waxee rek mu delluwaat waaw te Makka ak Madina mooy diggante Paris ak Fran ak Lyon waaw 450 km à peu près mooy Makka moy moy mooy Makka ak Madina mooy comme Paris ak Lyon manam mi ngi melni ku dëkk Lyon benn massa masala bobu tax nga daal di jël sawu fas dem dem dem dem Paris ji pour dig la tontu nga nga daal di jëlaat sawu fas ñibbisi bokul ak du du du du TGV hein ah. <laughs> du waxo tamit waaw. mu ne ko kay fa mu ne fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam ne kay fa mais naka maanaam li muy tekki mooy naka nga mën a continuer di takk parce que daf ko ko wax ba pare daal ni gëw ko maanaam ndaw si daal gëw ma waxam mu ne ko mais naka nga mën a continuer di yor soxna soosu waxat fekk dëgg-dëgg kii la waxoon waxeef na loola maanaam mooy loolu tamit day wane ni maanaam euh, ixtiyaat maanaam dafa dafa am solo maanaam mooy di sàmm xam nga loolu mooy ndaw si wax na ko donte moom léeru ko ngir ne toog nañ lu yàgg wax ko ko waaye comme que moom rek la am comme inform kuy mën a informer ci mbir moom moo tax bu ko waxee mbir mi lënt na mu ne ah kon nag nañ bàyyi moo tax mu ne yenn saa ne ko ah kon nag bàyyi kay fa naka nga mën a continuer di takk kooku téye ko ci sëy bi ba pare te fekk waxat xiira te wax nañu waxu ko ne waxat xaalat de daf ne waxat xiira te fekk wax nañ maanaam moom mooy wóoru dara léeru ci waaye comme que rumeur bi am na bàyyi maanaam te loolu kon day tekki ne maanaam tey loolu moom moo tax bu fekkente ne nit ki dafa am euh, dafa am ndaw su mu takk masa ndaw su mu su soo xamante ne masalan dafa am benn maire bu dëkk par exemple Lyon mu nàmpal mu nàmpal ko te xamatuñu kan la waaye xam nañ ni ndaw si lyonnaise la waa Lyon yëpp dootu leen mën a takkati waaw maanaam faw ngir ne lu tax Euh, mën naa nekk ne doomu ndaw soosu takk moom maanaam doomu meer boobu la takk wala doomu ndaw soosu waaye nag bu ñu bëree comme man la nekk réew mu ngan na ngan nag lu demee nekk Irak wala Amérique wala Sénégal lëmb wala yu mel noonu bu boobaa day daal di teggeeku waaye su fekkente ne dut am na maanaam ci ni kii nàmpal na kii wala nàmpalu ko dut boobu am boobaa dañ koy dañuy day day day lënt loolu nag day dox ci masala yu baree bari manam ci lépp lo xamne ay sikki sàkk daf ci am ci buntu bobu ba pare fi tamit mom moy ne al aslu fil ab'ad ak ak tahrim manam ci manam xam nga dina al aslu fil ashya'i al halal mbir yi li nga xamne mo ci ciosan moy mooy dagan na waye budé nak ci walu sëy ciosan bu moy dafa haram manam tay buñ la mayoon soxna waye nga ñëw dugg ci ci bir néeg bi xamoo ndax ki moy soxna si ñu la may waaw wala de ba tay ba tey day haram nga tek ko sa loxo waaw maanaam faaw mu leer ne kii la du keneen kii la maanaam bu boobaa ci ngay ci ci ngay doog a amee droit yu bare bare waaw waaye waaye dara leeru ci ñu naan nee nañ apparemment ak dama foogoon ni loolu li loolu du la ci génne dégg mu ne fa faaraqa moo tax mu daan di tàqali ko moom uqbat wa uqbata euh, ibn al-Haaris radiyallahu taala anhu mu ne wa wa mu daal di takkaat zawjan beneen soxna xayrahu kudul kooka maanaam xam nga zawju zawju dañ koy wax di muy tekki góor di tekki jigéen zawjatu nag suñ ko waxee jigéen la waaye zawju day tekki jëkkër zawju di tekki jabar moo tax rabbana hab lana min azwajina wa zurriyaatina qurrata a'yunin day tekki suñu jëkkër yi suñu jabar yi <laughs> waaw yàlla may ni rabbanaa suñu borom may ñu rablanaa jox ñu may ñu min aswaajinaa ci suñu jëkkër yi ci suñu jabar yi wa zurriyatnaa ak ci suñu njaboot gi qurrata ni luy sedd suñu bët voilà ah, ndaw si nga xamante ne moom la takk nag ñu ah, ngi tudd Zurayb moom la moom la ki mu ki mu takkaat Zurayb la tudd xalis bi <clears throat> hadith bi imam al bukhari rahimahullahu taala indi waat nako hadith numero numéro 2052 2640 2659 2660 ak 5104 imam abu Dawud as sijistani rahimahullah indi nako hadith numero 3603 imam an Nasai hadith numero 3330 imam at-tirmizi hadith numero 1151 imam ahmad ibn hanbal indi nako ci juróom ben beurep kon wa ashabu kusubu sita imam muslim indi wuko ma hadith bi kon du muttafaqun alayhi bu buntu ak tanaawub eh, weccee maanaam ak tanaawub di aw awloo ak tanaawub di aw awloo firaal mi ci xam-xam dafa am lu kii waaw ah, donc buntu <laughs> maa gis mu mel ni dangaa xaw a jaaxle ci benn bi <laughs> ah aw awloo mooy mooy di eh, eh, di mooy à tour de di def dara à tour de mooy di aaye waaw ah, nan ci ah, fii la aaya tey waaw kay loolu waaw aw di aayante wala bu la deexee nga wax loolu di aayante fil ilmi ci xam-xam maanaam bunt bii kon daf koo daf koo teg ngir wane ne maanaam nit ñi bu ñuy sàkku xam-xam dañoo war di maanaam bu fekkee fekkente ne dafa am lu leen préoccupé ba tax du ñu mën a nekk di teew saa su ne ñuy ay ay di aawante bu ko defee ñi fi teew bu ñu paree bu kee amee jot dem jëli ji compte rendu bi dem daan ne ah tey moom lu xew lan lañ wax ndax sahaba yi radiyallahu taala anhum noonu lañ ko don defal dañ daan ay ay loo wa comme tamit ni nga xamne non la ko sahaba yi don def radiyallahu taala mom amna na bu nek sahih imam muslim boo ko bata ibn amir al-Juhani radiyallahu taala mu non mu ne ñun wa ansaar comme dañu amone ay ci yu bari dañ daan am ay ay gëléem ñi yor juróom ñaar gëléem ñi juróom ñet ñee fuk bu kenn ku nek yoré si gëléem mi dem sammi ji ko ñëpp dañuy duñu duñu mëna jàng maanaam ku nekk da ngay xëy dem ci sa liggéey waaye bu ni ñu def mooy dañoo organiser wu nga xamante ne dañuy xool mbooloo ñu jël kenn jox ko gëléemu ñëpp mu dem sàmmi ji ñi ci des dem tooge yi ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam a jàll su ko defee suñu paree ñu ñëw nee nag benn bés mooy mooy boobu rek bi benn bés nag ma ñëw yéex a ñëw fekkee eh, ñëw fekk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax mu ne man ne oh lii baax na de Seydina Omar tourné ne ma bu njëkk bi moo gën a baax. maanaam di nga deng, mana dégg nga mu ne muttasil fi awal kitab la qaala xaddasana abul yaman moom mooy alxakam ibnu naafi abul yaman al bahraani al xemsi kon moom ndaw su dëkkoon Bahra moo ko comme ni ko doon waxee léegi mi ngi génnaan na deux cent vingt sallallahu alayhi wa sallam moo tax moo moo moo moo yor musxaf bu Shuayb bi bu Shuayb bu moo tax moom moom moom bu soloo moom lañ la doon wax léegi tamit ne la moom it bu solowee souvent axbarana lay wax mu ne xaala axbarana ngir ne daf koo jàngee ci Shuaybul maanaam téere bi téere la bu Shuayb indi lu ci ëpp mu soloo ko ci imam az-Zuhri rahimahullah moom nag mu ñëw soloo xadis soloo téere boobu mooy Shuayb ibn Abi Hamza دين موي ا القرشي الاموي موي تي وابن اميه لا بوك موي مولاهم موي ابو بشير الحمصي نون لا تود دغ مي ген ادنا 162 اني غيناو غدا يننتي بي صلى الله عليه واله وسلم ا امام الذهبي نانا رحمه الله تعالى موم امنا 700000 حديث يمو جانغي تي سوري نو فاي بي واه ba pare nag bindam dafa rafetoon lool aussi loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne euh, moom moom la euh, moom la mandargoo imam euh, alxaafis ibn xajar asqalaani ni siqatun aabid ku wóor la ba pare jaamukatu yàlla bu màgg la yaxya ibnu mayen rahimahullah moom indeeguñu ay waxam ba léegi ndax mayen ngeen ko ku ku bari riwaay la moo tax am na waa joo xam ne yaxya ibnu mayen dafa mës ñëw ndaw si dafa ñëwul di laaj di fekk ko mook imam ahmad ibn Hanbal ñu ñu ñu mu ne Yahya ibn Ma'in moom ak imam Ahmad da ay dañ daan ànd lu bëri bëri danañ fàttaliku histoire bi waa ji euh, waa ji bi dafa ñëw euh, mooy dina kasaas yi kasaas mooy gàmmukat kasaas d'ailleurs même expression mooy kuy faral di nettali ay histoire dañoo ñëw julli ba pare mu daal di jóg di jàng di di di tari di wax أنا حدثنا يحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل قال حدث دور تعالى نجيب تجنب صلى الله عليه وسلم داني نينا وا داني واخ اي واخ يو يو يو يو يو يو يو بار تود اي مير يو كي مان بام واخي فك نيوم نيار نيوم كوم نيو درين دون نيو احمد دكو مي يو يا با جانغال حديث بي مولو ديتا man ba ma doon wax sax ne xëy na daa dafa jaawale ne ñun ñaar ñëpp ko jàngal waaye que yow yaa ko jàngal mu ne ah waaye muy dóor dóor waaye comme que ñoom bu ñu kiiwee ba pare ñoom meluñu comme suñu gàmmukat yi ñun suñu gàmmukat yi moment bi ñuy gàmmu ci la ñuy waraale di di laajaale gars yi di jox day tàllal mais ñoom bu ñu daan gàmmu maanaam bu ñu daan waxtaan dañuy waxtaan bu ñu paree ci la ñuy doog a nag dem. doog a dem nag gaa yi fekk préparé nañu li ñu leen war a jox ñu doog leen a jox waaye bii pa ya yax yax nuwaaye dafa gars yi dañoo ñëw biñ ñëwee di laaj ba ñëw ci ñoom ñaar ñu ne ko waaw dañ laa bëggoon a laaj benn mbir maanaam bu ñu demee ba nit ñi kii ñun dañ la bëggoon a laaj benn mbir ne gaa nag ñeneen yi nga nettal léegi ci kan nga ko déggee mu ne ko yaay yaay maanaam nga xam ba <laughs> mu ne ko ah man de mooy Yaxya ibnu Maïn kii de mooy Ahmad ibnu Hanbal mun ko wax te ñun ñaar ñëpp musuñoo fàttali fu ñu jàngalee lii mu ne ko seet yàgg naa dégg ne Yaxya ibnu Maïn xelam dafa dafa kannasu waaye tey laa gën a gëm man ma xam lu tollu téeméer Yaxya ibnu Maïn ak téeméer Ahmad ibnu Hanbal ba pare da di jog di leen kokkali di leen bëllee waaye dafa bokkoon ci mandarga moy dafa ci mom eh, dafa diiroon dafa dafa dëgëroon manam bala muy wax ni diw ko wor la fay jafe Mom mom souvent day wax ni rek ah, mom dal problème nekul ci mbiram mom dal waaw mom dal ça va dal genre lay sa bihi ay yu mel non waye bala muy wax ni diw siqa lol c'est rare léeg nga gis ko wor mune mune mune ne mu ne déedéet kooku bu leen bind jëlee ci moom benn xadis te pourtant ku wóor la maanaam ngir rigueur bu mak bi nga xam ne moom la daan àndal waaye Shuayb mi moom dafa ne min asbatin naasi fi zuhri ci ñi gën a ci nit ñi ci imam az-zuhri la kon abu ya'la al-khalili nee kana kana katib az-zuhri وهو ثقة متفق عليه حافظ أثنى عليه alayhi maanaam kon moom jaam maanaam ku ku moo daan bindal imam az-Zuhri rahimahullah ba pare ku wóor la ku ñu dëppoo la ci moom ba pare euh, ku ku ku mën a takk la ba pare xeet yi xeet yi maanaam imaam yi imaam yi yépp tagg nañ ko waaye xool la li imam Abu Dawud wax rahimahullah as yi daf ni kaana asaxu xadisan an az-Zuhri ba'da az-Zubaydi ginnaaw az-Zubaydi moom moo gënoon a dëgër ay wax ci Zuhri mais est ce que xam ngeen taalibi Zuhri yi mooy ñan ñoom imam Malik ñoom Ibnu Uyayna ñoom ah ñooñu la ah ñoom al-Awzaa'i ñoom imam Lays ñooñu ñooy taalibe Zuhri yi moom mu ne moo gën a Yahya ibn Ma'in ne moo gën a dëgër bu jëlee ci imam az-Zuhri ku jëlee ci imam az-Zuhri Shu'ayb bi moo la gën a dëgër la wax maanaam mooy tey moom ak imam Malik bu ñu soloo woon ci Zuhri yi ñu wuutee ni ñu solowee baat bi Shu'ayb bi la ñuy jël wax dégg nga mu ne ani zuhri mu jël ci imam az-zuhri xaa maanaam mooy voilà mu ne qaala euh, wa qaala nee na nee na qaala abu abdullah te moom mooy al-buxaari wa qaala ibnu wahb te moom mooy imam bu màgg bi faqih boroom xam-xamu fiq maaliki bu màgg boobu nga xamante ne ci ngiiru imam malik ay waxam dafa am doole lool mu nekk mu nekk faqih nekk muhaddis bu maga maga mag nga xamne wa waa asxaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ay xadiisam muy abdullah ibn wahb ibn muslim ibnu maslam al qurashi al fihri mawlahum moy abu muhammad moy daqatal abu muhammad al misri boro faqih faqih bu mag bob rahmalahu taala rahmatan wasi wax ji nga xamne mom la wax jele ko ci ibn wahb mom indi wat ko def ko manam ta'liq la li ñu naan la ngar ngir ne moom jàngewul ci ibn ibnu wahb rahimahullahu taala waaye ibnu xibbaan ci saxiixam soloo na wax ji mu nekk loo xamante ne dañ ko jotale mu jële ko ci ibnu qutayba mu jële ko ci xarmala mooy xarmala xarmala ibnu yaxya moom mu jële ko ci imaam abdullah ibnu wahb qaala axbarana yunus te moom mooy al ayli ibnu yazid al ayli moom gisoon nañ ko tamit maanaam an ibnu shihaabin mooy az-zuhri maanaam kon az-zuhri bu ko waxee moom lañ ci jublu bu ñu nee ibnu shihab moom la mooy muhammad ibnu muslim aboubacar mooy dàqantalam maanaam an ibnu shihab an obaydullah ibnu abdullah ibnu abi thawr bokkut ak obaydullah ibnu abdullah ibnu utbata ibnu mas'ud bokkul de kii kii euh, ànd ak ne ku wóor a wóor la ku dëgër la ci ban euh, euh, mooy abdullah ibnu mooy obaydullah ibnu abdullah ibnu abi thawr al qurashi al madani Euh, rahimahullahu taala ànd ak ne ku wóor la waaye euh, ci saxeex bi ba saxeex bi nag ñetti yoon rek la ñëw kii ñetti yoon la am ñetti xadis rek la am kon wuute waaye wuute nag kële nga xam ne ci fuqahaa sab'a yi la bokk boroom xam-xamu madina yi nga xam ne juróom-ñaari boroom xam madina yu mag yi nga xamante ne lu ñu wax rek mooy waxu boroom xam waa madina yépp te ñoom la Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala du jëloon di leen saa yu bëggee def fatwa mu leen doon laaj maanaam juróom ñooñu euh, kii bokkul ak kële bokkut ak Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud donte kii si xala comme ni nga xam ne noonu la ko alxaas ibn Hajar waxee rahimahullah ak ñeneen mun a an Abdullah ibn Abbas te mooy Abul Abbas al-Bahr ibn Abdul Muttalib euh, ibn euh, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma an Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na manam kon fi dañu gis ni ne sahaba ni sahaba sahaba mo jole ci sahaba qala anna qala nena kuntu nekkoon ana man wajarun ak dëkkaale li ñeel ma minal ansaari ci wa ansar fi bani umayyata ibn zayd ci banu umayyata ibn zayd la euh ci al fatha alfatha bari al hafiz ibn hajar raximahullahu taala daf ni ibn qastallaani wax na ne ibn malik la tuddoon waaye indiwul dalil bi amma euh, euh, ci al isaaba nee na kooku mi ngi tuddoon aws ibnu xuuli te foofu daf ko indi mais fekk mu indi ak ak ak kii ne ne ne bi mu ko gëstoo ba gëstu ko settanta la gis nga ni aws ibnu xuuli la voilà dégg nga radiyallahu taala nee na kon ci banu umayyata ibnu zayd la bokk na ci lii mooy mooy Euh, euh, euh, bokkul woon mooy Utba ibn Malik dëkk bokkut ak bokkul woon ci waa banu ci banu Umayya ibn Zayd donc loolu tamit beneen mbir la buy wane ne du woon moom mu ne wahiya tamit moom min awaalil Madina dafa bokk ci dëkk yi ci awaal yi ndax benn maanaam koñ yu kawe yi la ci Madina mu ne wax kun naa nekkoon nañ nata naawoomu di ay ayloo an la wàcc ala rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ñun dañoo nekkoon ñoo xam ne dañ Euh, dañ daan euh, ay ayloo da daan awante di aw awloo ci lan wàcc gi ñu daan ñëw ci yenent bi salaa ngir jàng ngir jàng si mu ne nag yan zilu mu wàcc nag yow man bés waa an zilu man may wàcc yow man bés maanaam yan zilu dana wàcc yow man bés dana wàcc yow man maanaam mooy dañuy ay ayloo tous les jours tey damay dem suba moom mu ñëw ngir ne lan euh, ngir ngir ne Euh, mënumaa bàyyi sama préoccupation yëpp ngir damaa war a dundal sama njaboot ngir damaa war a def leen maanaam lépp lépp lépp di dem rek tout le temps di fekk yéen saa sam suba ba ngoon may nekk ak moom ngir di jàng déedéet du ma ko man mais euh, ñeneen ñi mais nag ñeneen ñi mais dañuy ay ay loo mooy mooy stratégie bi nga xam ne moom lañ trouvé woon ngir mën ne ay ay loo bu ko defee mais loolu daf fekk ne journée bi yëpp la mm-hmm. waaye am naa su fekkente ne par exemple euh, ak euh, ay heure la yoo xamante ne fekk na yeneen moment yi dox nga li ngay dox ba pare loolu bokkul wala comme ni nga xam ne noonu lañ ko gis woon ci ñenn ñi borom xam-xam yi rahmatullah alayhi comme niñ ko gisee ci al imam euh, Abu Bakr ibn Arabi rahimahullah nga xamante ne avant fajar bi maanaam njël la daan woota convoqué taalibe yi mooy bi leen dicté ci la leen dicté tafsirul Qur'an boo xam ne 500 tomes la mm-hmm. voilà nga xamante ne njël maanaam njël waxtu njël. ci la leen di woon na ngeen ñëw ci jàkka ji balaa fajar bi mm-hmm. heure boobu lañ daan jàng maanaam loolu beneen méthode la maanaam ay méthodes yu bari ñoo am waaye ay ay loo get mën naa am mm-hmm. ni ki noonu ku fekkewul jël enregistrement yi loolu mën naa am mm-hmm. yeneen ak yeneen yooyu mën nañoo am mu ne kon fa isa waaye mu ne fa isa waaye fa isa saa yoo xamante nazaltu man maa wàcc maa ñëw fekke jiitu dama koy dikkee bi xayrin ci yiw bi xabarin bi xabarin ci xabaaru zaalika yawmu boobu la bés minal wax yi ci li am ci wax yi wa xayrihi ak leneen maanaam wax yu yi wàcc alquran bi jot a wàcc ak njàngalam yonent bi salaa sallam ak xew-xew yi xew yëpp nee na ma laaj ko ko waaye wa isa saa yoo xam ne nasala moo wàcc fa ala mu def moom it misla zaalika kéemuk loola maanaam moom it mu def loola maanaam lii dañ ciy jàngee ne ndekete saxaaba yi radiyallahu anhum li ñuy nettali lépp naan yonent bi salaa sallam nee na nangam du lépp lañ dégg directement waaye nag loolu la wax mursalu sahaba loolu gisoon nañ ko waye bu fekkente ne loolu dafa nek ci sahaba yi du problème parce que xam nañ ñom ñep wóor nañ waye amma tabi'i su ko defé dañuy xalaat motax tab motax li ñuy wax hadith euh mursal du hadith bo xamantene tabi'i euh dafa solo manam manam moy moy hadith bo mooy tabi'i boo xam ne amul maanaam saxaaba amul wal wal mursalu mas saxaabiyu minhu saqat loolu définition boobu dese na dëgg dese na jug maanaam du sa ta du ne mursal mooy loo xam ne saxaaba daf cee rot déedéet du loolu mooy mursal mursal mooy loo xamante ne mooy mursal mooy al xadis alladi qaala fiihi taabii qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mooy bi nga xam ne taabii bi dañuy yent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ndax bu boobaa léegi la ñuy luññutu bu dee am nañ possibilité xam ci kan la ko dégg ndax ci yeneen ci saxaaba la ko dégg ñu ne waaw waaye amaan taabi yi déggee ci taabi ndax am na xadis boo xamante ne taabi yi day soloo ci taabi yi kooku soloo ci taabi yi kooku soloo ci yi ba ñuy 15 maanaam imaginer kenn ki daal di wax ne yeneen bi nee na sallallahu alayhi ñu ne ab saxaaba de toute façon comme taabi yi la saxaaba rek a dox seen diggante déedéet. te bu boobaa comme duñu saxaaba léegi dañoo war a xool ñan ndax ndax maanaam seenug maanute waaw wala déet seenug wóor seenug dëgër ndax gaaw ñoo fàtte ndax et cetera ci lan lañ leen mën a wóolu buñ leen mënta wóolu maanaam loolu moo tax moo tax mursal ñuy si ñuy lëñutu mbir mi bu taabi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mm-hmm. waaye moom problème boobu du ci am ngir ni dañoo wóor te bu ñuy ñëw di nettali dañuy nettali ni mbir mi demee mm-hmm. du ñu yokk mu nekkoon nag waaye nag fa nazala waaye mu daal di wàcc saaxibil sama sama àndandoo boobu nga xam ne ansaar yu moo bokkoon ci ansaar yi mm-hmm. yow ma bis nawbati yii bisu ayam fa daraba nee na mu daal di dóor baa bi bunt bunt bi ban ab dóor shadidan bu tara tara tar maanaam euh, am na lu ko jiitu maanaam mooy dafa jekki-jekki nee na euh, comme ni miir bi nekkee nii nee na ma jekki-jekki gis ko muy tëb maanaam ma gis ne xew-xew am na maanaam xam nga buy ñëw day dox normalement avant noonu la daan rek ñëw rek gis ko muy tëb muy gis bopp <laughs> <laughs> am <laughs> am na lu xew nee waaye mu ñëw bunt bi bunt bi pour mu ubbi ko maanaam ngir mu fëgg ak yooyu bis boobu tellement que dafa jaaxle que dafa fëgg fëgg bu foor foor foor nee na fa qaala nee ma ni ko asamma ndax nekk na fi keneen huwa moom ndax moo fi ne fa fas yaxtu ndax ndax maanaam li mu wax mooy eh est-ce que ndax ndax mi ngi fi ndax mi ngi fi maanaam dóor dóor bunt bi ndax mi ngi fi maanaam mooy est-ce que ndax y a quelqu'un comme genre y a quelqu'un voilà nee na fa fasee fu ma tiit fa xarajtu ba daal di génn ilayhi jëm ci moom fa qaala nee na mu ne xat dëgg dëgg xadasa xew na amrun mbir moo xam ne azimun bu rëy rëy rëy lu rëy xew na léegi lii euh, dafa am lu mu tëb ci histoire maanaam incha allah dana ci ñëwaat ci yeneen riwaayaat maanaam mooy def ni ko ndax waa Xasaan ñoo ñëw maanaam ndax booba dañ doon waajal ngir ne dañoo déggoon ay rumeur ne waa Tabuk mooy waa Xasaan ñoom dañuy ñëw fekk si yeneen bi sallallahu alayhi wasallam looloo indi xare Tabuk bi maanaam ñu dem pour pour pour gàttandu leen ba bañ leen a bàyyi ñu ñëw attaqué si leen maanaam léegi nag bi mu dégg ni ne ñu naan ñu ngi ñëw ñi ngi ñëw pour attaquer si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Madina def nañ coalition bu ngand armée bu rëy pour dem attaquer si leen léegi nag bi mu gisee waa ji di ñëwee noonu daf doon laajte ndax kon gars yi ñoo yegsi mu ne ko déedéet bal amrun a'zamu sa zalika déedéet lu gën a garaaw loolu foofu moo xew maanaam loolu la ko ne ko lan mu ne dañuy wax ne yeneen bi moo dafa tàqali kook soxnaam yi maanaam loolu la gis nga gis nga

lu gën a garaaw loolu moo xew lan moo xew nee nañ nii nañ dañu dafa dégg ne yéen eh, yéen bi saa salaam dafa tàqali ko soxnaam yi subhaanallah maanaam loolu mooy vrai bëgg yent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà maanaam ñoom léeg-léeg moo leen gën a tiital que que lee ci des voilà bu doon semence gi la bon ñu bëri ah yàlla yàlla nañu musal ci boobu xaar mais bëri na ci ñun ñoo xam ne bu doon ñu ne dañ naan la

ñoom ñëpp ñu toogandoo di jooy maanaam mu war ñoom fi ñu tolloog yonent bi saa salaam moo tax ku ne la ku ne la ñoo dëgg yow yaa gën a bëgg yonent bi saa salaam que ñooñu ku ko wax ku ne waxul dëgg ku ko wax xanaa mu nekk ci xaal ñu ne xaal bi ko ko wax loolu waaye ku sax loolu sax rek la mën a nekk munul nekk waliyu bu ko wax juum na ku ko wax nag ku mën doon juum na. munoo gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi radiyallahu anhum loolu munul nekk xool leen événement bi dañu waxante dëgg dégg ba tey yonent def nañ ko nangam def nañ ko nangam ñu ne cocc <laughs> koy way ñuy fi tasu alors yal nañu yàlla sàmm léegi ba mu paree nag nee na nag ba ma demee bi gisee jàkka ji affaire bi mel noonu nee na ma gaaw ko xaaral nee na fa daxaltu ma daal di dugg ala xasa ci sayyidat xasa radiyallahu anha muy doomam nga xam ne soxna yéen fi sal fa isa fekk ko moom it tabu kii muy jooy fa qultu ma ne na ndax da leen a fase da leen a daa tàqali ko yéen rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam xaalat mu ne laa adri xamuma xaw ma yent bi décidé ndax tàqali ko nag ñun waa wala dén hmm. mooy période bi mooy bi ñëwee waaw histoire boobu rek ñu ñëwee dajaloo di voilà ñun daal vraiment sonn nañu affaire yi dafa metti nangam voilà loolu am yent bi day kii mais lu mu am joxe ko ñun vraiment amuñu dara jamono jam doon metti sax ñun ñu ngi doon muñ waaye léegi am na xéwal yi dikk na vraiment lu tax mu koy saraxee lu tax mu koy vraiment voilà voilà yent bi nag salaa salama beru leen mooy euh, mooy bii xadis bi mu lañ tuddee xadisul ila borom xam-xam yi xadis bii la la ñuy tuddee xadiisul ila voilà mooy mooy comme ne alladina yu'luuna azwaajahum voilà boobu la mooy comme ni alquran waxee mooy ñi nga xamante ne mooy ci la àtte boobu àtte àtte ci ci lu mel noon lay wax mooy koo xam xamante ne moom soxnaam dafa toog beru soxnaam ndax yenn saa sam dafa dem ne léegi moom léegi day di nekk ci jàkk ji mais ngir ne euh, sox so euh, euh, ku beru sa soxna en fait loolu mën naa ne su fekkee soxna si dafa def lu ko jar waaye soo ko defee beru na nga xam que ne quatre quatre quatre na nga xam ne quatre mois kese la nga ko am droit def loolu bu quatre mooy yi jeexee soit da ngay dellu wala boog nga nga nga nga nga nga tàqali ko ndaw si waaye mënoo koo bàyyi noonu dégg mu ne bu laaj ko mu ne ko déet xaw ma de su ma topp daxaltu nee na ma na gannaaw comme moom xamul ma dem ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam daxaltu ma jug dugg ala nabi ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam faqultu ma ne ko anaa ma wa anaa fekk man qaa'im maa ngi aji taxaw ne ko atallaqta ndax dangaa tàqali ko ni sa ak sa soxna yi qaala yenent bi sallallahu alayhi wasallam ne laa déedéet maanaam lii day wane tamit ne ndekete rumeur mooy ishaati rumeur yi mooy euh, li ñu naan ruumandat moom la ñuy wax ruumandat ci wolof romandaat yi kenn du ko bàyyi xel beneen bi ci des moom mooy tawaatu mbir mën naa siwu fekk du dëgg te li gën a garaaw mooy événement bi mi ngi xew jamono yeneen su saa mi ngi seen biir moo lay wan ne kon ce qui veut dire ni lu wóor balaa ñu mën a wax ne wóor na xattaa loo maam lu ñu naan mutawaatir balaa ñu mën a wax ne lii mutawaatir la mooy siiw la siiwaay boo xam ne kenn mënu koo réfuté kenn mënu koo naq bañ il faut que mbir mi dem di dem di dem ba daj ba dem ci loo xam ne dañ koo laal maanaam ci gis naa ak dégg naa mm-hmm. ak laal naa mm-hmm. ci loolu la mën a aju mais munul aju rek yaakaar naa ak dégg nañu parce que léeg-léeg wax siiw ndekete fenn rek la jóge maanaam kenn ko wax tey mën nañu am benn wax joo xamante ni ñu ñëpp dañ koy répété loo fekk ci kenn rek lañ ko déggee maanaam bu ñu munuñoo sukkandikoo ci ne fukki nit wax nañ ma ko kon dëgg la déedéet fukki nit wax nañ la ko mais fukki nit yooyu kenn ku ci nekk kan moo ko wax ak fu mu ko jël ndax moo ko gisal boppam waaw wala déet bu dee fukki nit yooyu képp ku nekk ci ñoom nee na maa ko gis waaw ah. waaye bu dee dañ naan rek euh, non wax nañ ko comme ni ñu mel ni croix wu comme ni ñu mel ni ne yéen yàlla ay saa saa ndax dañ koo pendre waaw wala déet dañ ko daaj waaw wala déet loolu li muy siiw siiw siiw mënuñu ko tuddee mu tawaatir lu parce que dem demul ba daj loo xamante ne. kenn ku nekk ci ñi ko nettali dani maa ko gis te leer na ma ni kii moom maanaam comme mbir mi ajuwul ci loola moo tax kenn mënu koo tudde mutawatir moo tax il faut ñu bàyyi xel entre mutawatir lu ak loo xamante ne ay rumeur la maanaam ay ruumandaat la mooy imaginer tey buñ nee la màkka moom existé na loolu mutawaatir la même bu ma fa demut xam naa ne am na lu tax parce que mbooloo mu bari ñoom dem nañ ba foofa jóge fa ne ñoom demoon nañ gis nañ ko maanaam kon mbir mi leer na mais mënuma koo acc rek ci ne gaa yaa ngi koy wax dëgg la kon ju tere yaa ngi koy nettali kon dëgg la déedéet beneen bi ci des mooy bi mu nee leen xaala déedéet euh, maanaam fa qultu nee na mu ne leen maanaam kon dañuy xamee ne nekkete maanaam laa mooy maanaam euh, liñ naan aljawaabu mu euh, euh, euh, al al suaalu mu aadun maanaam mooy laajte tontu bi day day maanaam laaj bi day dellu si ci tontu bi ndax daf ni leen déedéet li muy tekki mooy lan mooy déedéet façon ma leen. kon loolu li muy tekk mooy tey bu ñu la laajee ndax fase nga sa jabar nga ni déedéet mooy fase woo mooy moom day taxaw taxawaayu nga ni fase wu ma waaye bu ñu la ndax fase nga sa jabar nga ni waaw sëy ba tas na. Mhm. saa ah, sa jabar waaw. sëy bi tas na vraiment non dama doon xam nga yow yaa gën a tay ne fase wu ma ko sëy bi tas na ndax kenn du fooyee loolu dégg nga fa xultu nee na ma ni allahu akbar voilà maanaam ngir bég maanaam loolu tamit mooy màndarga maanaam ay ay ay fittasu ay ëske ah, yooyu du du loolu mooy maanaam sunna mooy nga ni allahu akbar sunna mooy boo kontaanee nga ni allahu akbar boo jaaxlee nga ne allahu akbar loolu tamit sunna la comme ni nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la waxoon biñ biñ biñ ko gaay gaay ne wutal ñu fu ñuy wéer ñu nit suñu jaas yi comme ñii niñ ko amee mu ne allahu akbar haadihi sunna comme ni nga xam ne ñële ñoon la nga ni ñu waxoon yaa Muusa ij'al lanaa aaliha kamaa lahum aaliha yéen def ngeen comme ñoom dégg nga hadis bi imaam al Buxaari rahma solo na ko waat ci hadis numéro 2468 5191 5843 ak 6218 imaam Muslim indi na ko hadis numéro 1479 imaam at-Tirmidhi ci hadis numéro 3318 imaam an-Nasaa'i ci 3 bi hadis numéro 3132 imaam Ahmad indi na ko ci hadis numéro 222 kon hadis bi waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom des Abu Dawud ak imaam Ibn rahmatullahi